Sen Sport 221 dal leen ak jàmm ci xibaar yi tàggat yaram yi. Edouard Mendy di gardien international sénégalais bi nga xamante ne mu ngi évolué ci football club bii di Stade Rennes nekk ci championnat bu France bu ñu sukkandikoo ci këri xibaar bi ni yi ñu génn Chelsea football club ñu ngi ko doon topp. ki nga xamante ne moo di Frank Lampard soxla ki nga xamante ni moo war a utuwante ak Kepa Arrizabalaga di gardien international espagnol bi leen nekk foofu la ca Chelsea ki mu tegoon bët nag ci jamono yile moo di ki nga xamante ne moo di Edouard Mendy toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett waaye buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar bi niki tey jii ci talaata Chelsea football club amaloon nañu ab offre waaye Stade Rennais dañu ko delloo lii nag ki ko xamle moo di journaliste bi nga xamante ne moom la ñuy wax Simon Rivera ci émission bi nga xamante ne moom la wax au de club ci seen bii di téléfoot Edouard Mendy kon ak demam foofu a soxla gannaaw nga xamante ne moo di jamono Chelsea football club amaloon nañu ab offre mu ñeel joueur 28 ans bi di Edouard Mendy waaye ñi nga xamante ne ñoo di Stade Rennais dañu ko delloo. dañuy wéy ci xibaar ba tey foofu la ci FC Barcelone ki nga xamante ni moo di international sénégalais bi la di Moussa Wagué di évolué ci football club boobu léegi gannaaw bi nga xamante ni ki fan yu génn kayiti xibaar yi doon nañu xam ne ne de. ñii di waa Barça ñu ngi doon amal li nga xamante ne moo di préparation wu saison bi ñu dëkkmal kii di Moussa Wagué sax mu ngi doon entraîné ak football club boobule gannaaw bi nga xamante ne dañu changé course niki fan yuy génn tey nii nag buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar foofu la ci Espagne ñu ngi xam ne de Barcelone génne nañu liste bu 16 ak juróom-benn yi nga xamante daal wax nañu ne bu offre bu am solo ñëwee diñu dinañu leen jaay bokk na ci fukki joueurs ak juróom-benn yooyu la ki nga xamante bokk na ci liste boobule ak ki nga xamante ne moom la ñuy wax Neto Nelson Semedo Sergi Roberto Samuel Umtiti Junior Firpo Ivan Rakitic ak ki nga xamante moo di Arturo Vidal ak ki nga xamante ni sax moom la wax Brett White mi nga xamante ne ni weer yi ñu génn rek la foofu la ci FC Barcelone ak Philippe Coutinho mi nga xamante a dellu si ni ki fan ki nga moom la wax Todibo Rafinha ak Emerson ak ki nga xamante moo di Juan Miranda ak Oriol Bosquet kii daal lii daal muy fukki joueur ak juróom-benn yi nga xamante ni ñii di waa FC Barcelone wax nañu ne bu offre bu am solo ñëwee dinañu leen ba jaay bokk na ci 16 yooyu la ki nga xamante ne moo di international nga xamante ni ni mu ngi doon évoluer ci Nice kam weer yi ñu ba di football club yu kii di xibaar ne nag Chelsea football club gannaaw bi nga xamante ne ni ki fan yi ñu génn rek ñu doon tudd FC Barcelone bu sukkandikoo ci këri xibaar bi ki nga xamante ni moo di Frank Lampard soxla na ki nga xamante moo di jeune franco sénégalais bi lee di Malang Sarr toll ci 20 21 ans bu sax ci këri xibaar bi mu ngi xam ne ne waxtaan mu ngi avancé bu baax a baax diggante Chelsea ak ki nga xamante ne moo di Malang Sarr gannaaw bi ñu boucler signature ki nga xamante ne moo di Hakim Ziyech ak Timo Werner di tenter ki nga xamante ne moo di Thiago Silva ak Kai Havertz jamono yi këyiti xibaar baa ngi xam ne ne kii di Malang Sarr mu ngi ci bëtu Frank Lampard te jamono yi waxtaan baa ngi avancé bu baax a baax diggante Chelsea ak kii di international wala défenseur franco sénégalais bi lee di Malang te bu dee déggoo am na kii di jeune franco-sénégalais bi di Malang Sarr dina signé contrat bu toll ci ñeent at foofu la ca Chelsea football club dañuy wëcc ci transfert yi ba tey foofu la ca English Premier League bi ki nga xamante moo di beneen sénégalais ñu naan ko Nampali Mendy nekk foofu la ca Leicester City gannaaw bi nga xamante ni mu ngi jóge woon foofu la ca Leicester City kii xibaar yaa ngi xam ne ne kii di Nampali Mendy yokku na contrat ba mu war a des foofu la ca King Power moom Nampali Mendy depuis 2016 la ñëwoon foofu la ca Leicester City jóge woon ci football club bi nga xamante ne moo di Nice nekk ca France ñu jëndee woon ko njëggu toll ci fukki million ak juróom ak yenn wàlla ci xaalisu tugal moom Nampali Mendy joué fa lu ci 49 ak football club boobu di Leicester City ni ki saison bi ñu génn nag juróom-ñetti match yi nga xamante gisuñu ko moom Nampali Mendy jamono kii xibaar yaa nga xam ne ne yokku na contrat ngir des fi ñu jaxalee xabaar yi nag moo di kii di Sadio Mané ak équipe bii di Liverpool dikki tey ji génnoon nañu di amal seen beneen match su préparation mu ñeel diggante Liverpool ak Salzburg la woon sel Sadio Mané ak Liverpool nag témboo nga xamante ne ñoo di ñaari bal ci ñaar deux bi partout la ñu demee ñaari club yi gannaaw bi nga xamante ni amoon nañu seen match bu njëkk seen diggante ak Stuttgart tey jii mu nekkoon seen beneen match bu doxoon seen diggante ak Salzburg nekk ancien club bu kii di Sadio gannaaw bi nga xamante ne di waa Salzbourg ñoo mëni woon Liverpool ñaari bal ci dara ci premier mi bi balaa Liverpool di dellu si ci deuxième mi bi ñu war a demee ñaari bal ci ñaar kenn gañuwul sa morom jogante gi deux bi partout la jeexee diggante Liverpool ak Salzbourg kii di Sadio nag joué na jogante gannaaw bi nga xamante Liverpool ñu ngi préparé saison 2019 wala 2020 2021 jii ñu dëgmal le 29 a joué seen match nga xamante ne war na dox seen diggante bu war a dox diggante Liverpool ak Arsenal ni ki samedi ji ñu dëgmal